ñu jox kàddu gi borom gàmmu gi katolika borom gàmmu gi sëñ ñu jox ko sant gërëm nag Moustarchidine yi ak sécurité bi ñuy assuré waaw di ñaan yàlla ñu yàgg fi ñëw di ñu fi yàgg fekk ndax lii ñuy def teranga la yàlla yàggal teranga seen loxo lu nu def ren yal na def dewoon lu ko ëpp ñun ñëpp kontaan si ñoom si sécurité organisation ñaar a ko yore discipline ak sécurité ñoom ñëpp nag ñoo koy assuré fi yal yàlla fay sëñ Habib bul way de noo jeex na ba pare heure bi jot na quatre heures et demie la ñuy julli fajar quatre heures et vingt jot na dix minutes man li may li may ñaan rekk mooy kenn ku nekk ci nun na jàng fatiha salaatul fatiha fukki qul wallahu ahad ak juróom ñu yéene ko sunu waajur yi fi jóge di Baye si Ahmed si ak mbooleem ña mu fekkee ña ko fekki jaarale ko ci baayam ak maamam ak ay magam ak ay rakkam ak jullitu yàlla yépp fu jullit tëdd leen ñaan na ko yàlla jotale yoolu ñaan bi gars yi asalaamu noo dégguma dara dara dara dara dara xanaa namu leen ma waxaat leen ko waay man de na moon naa leen asalaamu aleykum waxtaan jeex na de xam nga lu fi des ah. laaj leen ma ko pikiir cocktail bi cocktail bi ku bëgg sa aju faju rek neel nii aha dama ni ku bëgg sa aajo faju laa wax jógal taxaw sa aju bëgg laa wax de ñetti minute lay doon parce que waxtu wi jeex na da ngeen maa namoon ma namu leen ma bëgg leen a bëggal ci ñetti minute da bal bal bal ñetti minute dut kenn xam nga kuñ fi dajale boroom ndaag li boroom sàkkar bi boroom ayka bi boroom manto bi ci gaaw ci soxla yi gaaw ci kayit yi gaaw ci tak-tak yi mën a indi yëf yi ni mu jàkkaarloo ngeen waaye borom na la jàkkaarloog Cheikh ñaari minute rek ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog As ah. ni mu jàkkaarloog As na la jàkkaarloog yéen Serigne Babacar Sy ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog dama bëgg rek mu neex muy gàtt nga ma koy jox ma la koy jox ñu koy paasante bu mbëkk jotee nga mbëkk bu paas jotee nga paas ni mu jàkkaarloog demal. ni mu jàkkaarloog yoneen. waaw la la jàkkaarloog Cheikh. waaw ni mu jàkkaarloog Cheikh. na la jàkkaarloog aas. ni mu jàkkaarloog aas. na la jàkkaarloog yéen. ni mu jàkkaarloog yoneen. yu mu jàkkaarloog aas na la jàkkaarloog yéen. asalaamualeykum. aleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi leen di ziyaara. di leen nokkeel ci guddi gi. di ziyaara sunu kilifa yii. di sunu woyjur wii toog. gaay toog leen. bu soobee yàlla na seen xel dal waxtaan andiwu ma ren gàmmu andiwu ma gaañee ma ni dëkk baa ngi bëgg a lakk problème yi bare na kayit yi tag na gouvernement bu soxora fi nekk gaa yi amuñu xaalis bëgg nañoo de mënuñoo dëpp ma defaraat cocktail bi indi pikiir bi bëgg leen koo pikiir faj seen aajo dem sama yoon loo rekk ma indi ba asalaamu aleykum aleykum salaam wa rahmatullah dañu doon mboppat mani dañu doon mboppat sëriñ si dañu doon mboppat tëgguñu woon làmb maa leen koy tëggal mani ni yi dañu doon mboppat maa leen koy tëggal baay asalaamualeykum maa ngi ziar Serigne Mansour Sy Dabakh sunu waajur bu baax wii mat ñu ko lool nag di bopp yoon wi di kenn ci xadara bi di ko yaru bare yar bare teggin mën a joxe cër lool te moom lépp yàlla yàlla guddal sa fan di fekkoog doomam turandoom bokk turandoom buy xaritam di suma tabarkàlla di tabarkàlla alaaji jërëjëf si Malick maa ngi lay ziar si di alxaaji suur si jabil neexa àndal di ku bare fayda ak fulla di ko xam boppam di ku soppoon mag ñi mag ñi sopp ko ci yàlla na yàlla fay la ñi ngi lay ziar si di nuyu sarako ju baax jii mbir mi tey dafa alaa daaw me doy waar lool ndax gaañi ñi seen sëriñ sëriña ma ñëw la naar ba waxoon gàdd gi tey jàmm du fi am ñu ne ko lu tax mu ni seen sëriñ sëriña ma ñëw moo fu may jaar sëriñ Cheikh di sama baay di sama mag di sama sëriñ di sama kilifa toog jàkkaarloog man manaan ko dangay mbappat moo fu may jaar sëriñ bi jéggal ba de maa ngi jéggalu si Malick maa ngi jéggalu de maa ngi jéggalu si di nuyu nag sama tabarkàlla tabarkàlla bii imaamul murabbi bii góor gi ci jàllaabi bu xonq bi ak mbaxane mu xonq bi góoru Madina jërëjëf Si Maalik Serigne Cheikh Omar Sy di nuyu suñu représentant ambassade dale ko ci alxaaji Malick di nga xam ni ñaari tànk la fi tooge ak bokk yi mu àndal feggoog njaboot gu baax gi di suñu jigéen di suñu soppi di soxna Roqaya Ba Touré ak soxna Xadi Sall feggoog alxaaji benn seen waaye ren nag mbir mi dafa laa daaw me xam nga ku tax moo daaw me gars yi dégg ngeen Sénégal benn waay bu ñuy wax Jóob ah gars yi ana Jóob si Jóob jógal taxaw nit ñi gis la masoo ñëw jógal Jóob jógal waaye gars yi tàccu leen Jóob si ay tàccu leen Jóob si waay nee naa ko tey Italie am nañ gan yal na yàlla fay la nuy sunu soppe sunu xarit di sunu lépp di sunu doomam day ñu bokk bàyyi muy alxaaji Alioune Konaare di kenn ci xadra bi ànd ak soxnaam di ins Alioune nuyul ma ins maa nuyu ins nee na moom mooy sama ins di ko dagan na di nuyu alxaaji Amadou Gueye ñoom ñëpp Sénégal la ñu jógee ñii jógee ba Amérique Serigne Mbaye ñi nga nga jóge ca Amérique di dang-dangi te talaata dafay liggéey lii rekk ko indi kenn du borom bori kaare bi gars yi yéen a yéen a ku jara sopp ma ni cëm ba ma ñëw waaye di ziar nag suñu rak suñu xarit di alxaaji Modou Mbène Diop yàlla yàlla fay ko baayam alxaaji Dame Diop Mansour at mu jot daf ma naan billet booy jënd yow ak koy àndal kenn dootu ko fay man maa koy fay yëkkati ay millions teg ko ci sama loxo tabaarakallahu noonu la ko ren ji Jóob si mii doxale Moodu Mbeen mii moo signé xoos def lépp ba pare mu yabalaat ko tabaarakallahu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel waaye ren it affaire bi alaa daaw mi xammee ngeen ko anamu ana Ablaay waaye Abdou Aziz jógal taxaw du ko tax ñu gis la Ndiaye Allé Abdou Aziz Ndiaye gi nii gars am ngeen ay garde Abdou Aziz Ndiaye gi nii di taalibe sëñ Babacar gàmbu gu dafay dàq ay nag jël ay tonu ceeb di ko wër di ko séddale Tiwaawan tabaarakallaahu yal yàlla fay la ñi ngi sant ñëpp tabaarakallaahu am na sunu xarit di sunu soppe di sunu lépp di alxaaji Njañ Jóob lu rëy la def ci gàmmu gi mënul ñëw mu yebal collaborateur am di suñu doom di Pape Sow xuma mu ànd ak ñaari soxna Njañ ma ni ko Njañ da yaa man man ku dul man man samay sëriñ jël sa ñaari soxna boole leen benn chambre benn hôtel benn avion kenn du yow Njañ def na ci lu mu mën te lépp Pape Sow xuma rafetal ko di sant bu baax ma dem Tine di soxna Penda yàlla na yàlla fay leen dinaa ci ñëwaat gis nga man ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj yéen ku ngeen àndal ah ma ni ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj Ousseydi Mbaye di sawaay nga dénk koy cummi kaay loo di ragal ah. ak tiit sa bañ yàllay xeeloo lëmbek lëmbe ah. fu ñu booloo yaa fa doon sa mag leer law la siraaju ka yaa bay kon ma jóg fee loxo ca kaw ku seydi mbay di sawaay ngi dink kuy cummikaay loo di ragal akati sa bañ yàllay xeeloo way wëttal ma jaani ñàngoor damar day gën a ma bañ wala laale dañu lay suuloo lëndëk lëndëk fa ñu booloo yaa fa doon sax leer raw la siira ah. ju ko yaa bay kon moo jël feeloo koo fu xamul ah. dana réer koo u dana tiit koo fu baaraam billaay mu jokkeeloo lan dëkk lan la fa ju booloo yaa fa doon sa law la siira ju yaa may kon ma jor feelooy bay Cheikh Omar nee na ma ba léegi waxtaan wi déggaguma ci sama bopp xam ngeen kuy boppam Madina soxna Madina jërëjëf si Malick maa ngi lay ziyaara di nuyu sa soxna si nga dendal di soxna jaara di soxna jaara sekk bi nga xam ni mooy soxna xalifa ba <laughs> mooy soxna ahmada xalifaa ko def xalifa xalifa sëñ Moustapha moo ko ni doy nga ma ci gan yi doy nga ma ci àll bi ni ma ni la sa baay doyloo woon jël lépp dénkaat ko yàlla yàlla fay la ñu ziyaar ko bu baax a baax nuyu sëriñ Alioune bi nga xam ni mook sëriñ Cheikhou mi ñooy liggéey muy patron waaye Cheikhooy patron bi nag buy ñëwee fii buy delloo ci bureau ba nag muy patron bi mi ngi ànd ak am nee naa ko del ñëggal sa kanam di ko nëbb ndax boo reetaanee ba mu ëpp musibaam nee na ma fi mu toll mooy sama sëriñ ma ni ko bul tabaarkàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax di nuyu sunu bokk yi fi teew yépp tabaarakallahu ak waa kër mam borom Touba yi nga xam ni ñi ngi fi sunu waa kër mam raan yi waa kër mam Abdul Qadir Jeylaani yi waa Canaba waa Ñaseen ak daayira yi nekk ci biir itali yépp ak mbooleema daayira bi nga xam ni fédération xale yi te ñoom Makhtar Ndiaye jiite leen ànd ak soxna yu tedd yi tey invité ñépp nag pour ñu daw dugg ci biir di nuyu itam mbooleem Europe ñépp a ñëw Amérique wax naa ko léegi mbay ñi ngi moo fa jóge waaye tabaarakallaahu waa almaañ ñi ngi fi waa Suède ñi ngi fi waa Espagne ñi ngi fi waa France ñi ngi fi senegal kenn desul woykat di sant ñëpp di gërëm ñëpp bés bi ku nekk jàpp na ci alxaaji Bamba Njaay bu sunu bàyyi mook sëriñ Mansour turandoo sëriñ bi xaaji Abdul Aziz Njaay alxaaji Moodu Mbeen eh, alxaaji Njeen Jóob Cheikh Seck Zouwayr Omar Mbooj Moustapha Dia Mbay Jóob Jamil eh, Lamine kamara Alxaaji Demba Ka Karim Fofana ñoom ñépp kenn mànkewul kenn ku ci nekk loo daan def rek def nga ko soxna Urey Caam yàlla dafa dogal bés bi daaw ko mànke ren jii itam nattoo ko dal ma nga ca Maroc seen avion moo am retard ñu annulé avion ba vol ba ñu téye leen marok fu mu toll nii ña nga ca Maroc waaye nee na nu mu mën a def dina àggale yoonam ëllëg tey ji lañ ko naroon indi ndar ko woon sànni ca Rome ci guddi gi mu ni préféré na toog ba ëllëg mu xëy ñëw kon ñi ngi bokk ak moom lépp bokk ak moom bés bi di leen wax ni itam incha allahu taala waa daaira bi defar nañu ay carte barkeelu bëgg ñu jàppale leen ci seen zawiya bi nga xam ni moom lañuy ñuy bëgg a fii ci Treviso di it euh, wax ni incha allahu taala déwén gàmmu gi mi ngi tolloog le 11 avril le 11 avril déwén mooy gàmmu Treviso bii beneen programme la nag incha allah beneen taxawaay la ñi ngi ci xalaat dinañ ci waxtaan ak ñi ngi ci war a waxtaanal parce que am na yeneen mode yoo xam ni ñi ngi ko ci bëgg def ah? voilà mooy nekk vingt cinquième édition maanaam ñaar fukkeelu at bi ak juróom ci ñu koy organiser donc dañ koy préparer bu baax a baax ah un quart nee na un quart de siècle ah dëgg la bokk yi ñi ngi wax ni itam ci turu xalifa bi sëriñ si man suur di ci yóbbante nuyoo sëriñ bi ci sa wayjur woowu nee ko mbokki Italie ak waa Europe yépp ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla na yàlla yokk wéram sëriñ Mbay ku toll ni sëriñ Abdou ku ko wuutu ñépp doon nañu tiit waaye tabaarakallaahu fees na dell place Cheikh Ahmed Tidiane bi mu toogee nee ko Italie ak Europe ak àdduna bi diaspora bi yépp ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko fi bàyyi ay naatangoom ya mu nekk ca réew ma di sunu waajur wa ca Tuuba wa ca Njaasaan wa ca Laayeen wa ca Canaba ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seen fan di leen wax ni si sayidul kalaami alquran wa sayidul qurani baqara wa sayidul baqara ayatul kursi wa sayidu ayatul kursi alfatiha wa sayidu alfatiha bismillahi wa sayidu bismillahi albaau fa bii kaana maa kaan ubbi yëkkun maa yëkkun foofu laa bëgg waxtaane mu jeex dama ni sayidul kalaami alquran wa sayidul qurani albaqara wa sayidul baqara ayatul kursi wa sayidu ayatul kursi bismillahi alfatiha wa sayidul fatiha bismillahi wa sayyidu bismillahi albaaw fa bii kaana maa kaana wa bii yakun maa yakun déggoo ma de sangu wax yépp alquran la sangu alquran yépp baqara la sangu baqara fatiha eh, ayatul kursi la sangu ayatul kursi fatiha la sangu fatiha bismillahi bismillahi sangam baaba la fa bii kaana maa kaan ci lépp luy nekk ca lay nekke lu dul nekk du ca nekk xam nga lu tax bismillahi ma ne bismillahi dañ koo guddal wa tuwila al alifu bismillahi taazuman wa rifatan lillahi ma ni wa xudifa al alifu yéen mu ngi dégg déglu leen ma de soxna yi da ngay nelaw da ngay nelaw may ko ndox yow nga wuu dem na mani yàlla na yàlla fay leen damay wax ni li gën a am solo mooy gis ngeen fii ngeen ñëw lenn rek moo leen fi indi mooy yàlla ma leen di dénk réew mi toj na diaspora bi bu jëkk ba foo jëm ñu ni la sénégalais yi law la cat léegi foo jëm ñu ni la sénégalais yi kawteef ngay problème am na de ma ni bu jëkk ba foo dem ñu ni la sénégalais yi law la cat léegi foo dem ñu ni la sénégalais yi kawteef problème am na de ma bëgg delloo si xel yi li xew baaxul sénégalais kenn xamewu ko woon rey kenn xamewu ko woon def naka su dul noonu kenn xamewu ko woon yàkkamti kenn xamewu ko woon yaafus yépp mi ngi dellu siwaat ci ñun nan la ñuy ba yooyu delluwaat gannaaw ñu jëlaat suñuy valeur maa ngi ciy profité di nuyu le président de la république mboolem lu mu daan def rek ci da gàmm gi def na ko yàlla dafa dogal muy soog a samp état bu bees loolu mooy ngantam mu woote téléphone wax ni bu sañoon ministre ya mu daan yabal ñëpp ay ñëw waaye bër ci démb la defal gouvernement bu bees waaye lu mu daan joxe rek yokk na ko yàlla yàlla barkeel ko ñu ngi koy ndokkeel dut kenn dama bëgg nga laajal ma saam ndax dégg na sëñ Babacar si wala déet ana saam dégg naa ko kay saam ah. lu sëñ Babacar wax ku sopp Sëriñ Babacar Si fa min albuxuur ixtartu baxral kaamili li kamaalihi li kamaalihi fi madxi cheikhin kaamili sëñ Sam si loolu borom sàkkar yàlla bu jekk ba quarante ans zéro fet ak béjaaw bu rafet ba cheikh alxaaji abdu loxo ba ca baaram ba ca sàkkar yàlla ba daan jël mbaxane ma di ko tagal te naan ndeysaan fa min albuxuuri fa min albuxuuri ixtartu bahra alkaamili li kamaali li kamaali fi madi cheikhin kaamili loolu la wax ci sëñ Babacar Si fa min albuxuuri ixtartu bahra alkaamili li kamaali li kamaali fi madi cheikhin kaamili ba wax ne Cheikh Alhaji Mansour moom fawaa ajaban ah. fawaa ajaban li cheikhi li cheikhi laqad saluhat salatu aljamiina wa lawlaa salata la afsaduha bi taxliqin ya umm alxaadirina aqaama bi azmiha wa sawaabi xukmin kawalidi fa axsana mubina fa min albuxuur ixtartu bahra alkaamili boobu ana Cheikh Alhaji Habib Cheikh Alhaji Habib ما مثل شيقي في الورى بتورع والرب أكرم شأنه بالعيان انظر إلي بعين رحمة سيدي والباب فيكم يا إمام الزمان لا عيب فينا إن وقفت ببابكم أرجو الإغاثة سيدي ذا شاني وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان من البحور اخترت بحر الكامل ko Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour feelu man saaro hoo بسليم القلب نعلم فاسأل بي كل من تراه يخشاه من زاره قدر البساط من زمن يفوز به ما نوى من شيء نعمه فلذ به أيها المريد واعتصما بحبلي تنل التوفيق ترضى فلذ به تنل المفاض حيث جرى من لاذ بالأولياء يظفر بمن حاب من البؤر اختطوا بحر الكامل أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدار من أنتمي إن لم يكن لجنابه لمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك جو الخلب يا طير أبي فبيدي بخير وسري أسعد الطير أخلايا إن أحسنتم غير وثلي فدونكم عهدي ودونكم وذري سام سام waaw lu sëñ Babacar wax nag sëriñ Babacar ne waxadamahu jamiul anbiyaay sëñ Babacar nee na xadamahu jamiul anbiyaay sëñ Babacar si moo toog di lan la ko baayam waxoon yaa warisal xutbi ak maamam tewu déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet قدمه جميع الأنبياء قدمه جميع الأنبياء ورسلي في رضاك الأتقياء ورسلي في رضاك الأتقياء درج ما درج من طباخي درج ما درج من طباخي وهو يعرج إلى الآفاق وهو يعرج إلى الآفاق أراه رب العرش ما يرضاه أراه رب العرش ما يرضاه كذا من الأنوار كذا من الأنوار ما يغشاه لولا وخينا انتبه قدمه جميع الأنبياء لموخ شيخ يا راحلا متسابقا ركبان نحو الجنان الروح والريان أدي الألوكة من أسير علاقة قاس الحوادث مدة الأضمان أدي البيان لأهلها متصايفا بالوافدين وجملة السكان لولا مقادير الحكيم إلى أنا عرفوا بما أحوي بهذا الشاني لا تحصرن توسلا وتضرعا وترققا بالعين والتيجان سلمى وصلوا عيادة بتقرب كذا سائل الأوطان يوح بدت تخيل ورا بتعين من كل ناء ناذر والآني وتشعشعت أضواء وشعاعها وتعم بالأقطار والبلدان Sam Sam sëñ Babacar Sy dafa jàkkaarloog Cheikh dafa jàkkaarloog Cheikhuna Tidiane Chérif damay wax ni boo gisee sëriñ Babacar bokk ci dafa fekk ponkal damay wax ni ku jël sëriñ na Tidiane Chérif jox ko sa bopp lan ngay waxati xam nga lu sëñ Babacar wax Cheikh ah. naalal xilaafata alal xilaafata bal qad shaa'at wiraasatu ataa wa xatmun arrahmani wal jaawa naalal xilaafata qad shaa'at wiraasatu ataa wa xatmun min arrahmani wal jaawa borom daara ji saanal xiila loxo ca kaw naalal xilaafa def leen ni saanal xilaafa borom daara ji saanal xilaafa si Babacar ne naalal xilaafa borom daara ji saanal xilaafa si Babacar ne naalal loxo ca kaw xilaafa borom daara ji saanal xilaafa taay naalal xilaafa borom daara ji saanal xilaafa

خاتم من الرحمن والجاه وإن الخلافة وقد شاءت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه سمام يا خط يا غوث يا غوث يا ولي يا مولاي يا ثقتي غوثي مرادي ممد كل ذي شان ana waa daayira bi waay ana ku bëgg sëriñ Babacar Si ana borom bu lay rafet yi waay saanal xilaafata ana soxna xadina wak ay waa kërab waay saanal xilaafata ana borom bu lay rafet yi waay saanal xilaafata waay jóg leen taxaw mu xool leen waay saanal xilaafata bal bal naalal wiraasata bal daawa dalalata amman kaana yaxshaabu سما سبعين سما كهف السماحة بل كنز الهداية بل عون البرية من مرضات مولاه سبعين شاف السمائل بل حاوي الفضائل بل حلو المنائل بل بل, بل تارة مرآة dama doon bëggal da koy am fii tey lu fi waay ñaan mu nangu barke Alaaji Malik dama ni billaahi damay wàdde dama ni dama ni billaahi wallaahi tallaahi laa wax de xam nga arafu ngi ñaata la ñett la bi wata lañ koy tënk bi wata xam nga bi wata mooy billaahi wallaahi tallaahi boo waatee te du dëgg xam nga loo war a woor ñetti fan mu des bàkkaar ba lu dul billaahi ak wallaahi ak tallaahi lu dul moom du waat déggoo ma de ah. dama ni lu dul yii du waat yi ci des yëpp barkeelu la barke yonent beeg barke Cheikh barke Alaaji Maalik sëñ Baaba yëpp ay barkeelu la du waat xam nga luy waat billaahi wallaahi tallaahi te bu dul dëgg ñetti fan ngay woor yaa ngi dégg sama kaat waaw ma yi nag tey waaw dama bëgg ngeen déglu ma de dama ni billaahi waaw wallaahi waaw tallaahi waaw képp ku ñëw ci saal bii waaw ngir yàlla ak sëriñ Babacar nga dellu sa aajo fajuwul bu ma dellu see déwét bu ma la nuyoo bu ma fay barke أحد يشكو حوائجه إلا ونال مناه دون ريبات شيخ الحاج عبد الله إسماعيل نينا لازم زيارة هذا الشيخ محتسبا تنال ما تبتغي من المزيات doo ko benn bennal ma firi laazim taqool ziyaarata ziyaara kan hada muhtasiban hada cheikhu déggal ban sëriñ bii hada cheikhu bii demal muhtasiban te niitu tanaalu di nga am ma tabtari loo fa sàkku rek min al maziyaat ci ay ndollent xam nga lu tax dafa am benn waay bu ñuy wax njaay wàll yu njaay wàll yu kay xam ngeen njaal njaay wàlli déedéet waa ci du sopp waa wakaam yee jërëjëf dafa am benn waay bu ñu wax njaay wàll yu njaay njaay du jóob wàll yi de njaay wàll yi du jóob wàll njaay wàll yi njaay wàll yi dafa dem ca rawdu sëñ Babacar dem ca rawdu sëñ Babacar julli tisbaar ba pare dem di fi mu taxaw di benn waay bu ñuy wax Ousmane Diop ñëw nuyu ko sëriñ Cheikh mii xam na njaay wàll yi taalib bi sëriñ Mansour la woon ca kër ga ba mu ñëwee toog benn waay bu ñuy wax Ousmane Diop moo ñëw nuyu ko ni ko waa Ndiaye yow ba ñuy añ foo nekkoon booba daara ji dafa metti soo añul doo reer boo ndékkiwul doo añ mu ni ko lu tax mu ni ko daara ji añ bu yàgg nga tëgg fii nekk ci jàkka ji njaay ni ko nii booba boo añee ba pare doo raxas dangay ngay fomp ci suuf si waaye nag xet ga dafay des <laughs> njaay ni nii gis ko fóon ko xet ga des fa mu ni ndax am wax na dëgg de xam nga lu mu def sëñ Mansour waa ji dafa dem ba ci raw du sëñ Babacar jàng ñeent fukki xuloo ak benn ni sëñ Babacar maa ngi lay ñaan sama lii ma lay jox addiya lenn rek laa ci bëgg mooy yàlla naa am fu ma añee tey eh. njaayee eh, neex waaye déglu leen njaay waay wallaay ziar naa la dama ni waaye déglu leen maag njaay ñeen fukki xul wala joxe ak benn mu ne sëñ Babacar maa ngi lay ñaan bu ma génnee fi yàlla naa am fu ma añee mooy soxlam waaye kenn du barkaade ndekke moom xeebul soxlay kenn allah njaay mi ñaan añak waa jay ñaan kayit ak waa jay ñaan nekk ca Italie yëpp la yemale xam nga nu mu def déedéet ñaan ba jóg génn fudd génn ci buntu bu ndaw bi buntu rawdu bu ndaw bi buntu jàkk ji ak jaaxleem taxaw jékki-jékki rek soxna umu xaari borom waa ñu ni tëll génn ma takk ndigg la ni ko sëriñ bi sëriñ bi mu xool ko mu ni ko doogan dëkkoo fi mu ni ko ci ci ci daara ji laa dëkk noonu la doon waxee mu ni ko dama fi dañ fi toggaloon ay gan ay añ añ yi bëgg fee des ma bëggoon nga ñëw jël ko yóbbul ma ko ca daara ja bala mu fi yàqu. dinaa añ de kenn du sëñ Babacar. moo xayre di soppe mbay mooy pendel mu gënu tubay moo yor waa ñu di bay est-ce di soppe mbay waaw mooy pendel mu gënu di bay est-ce que yi diine loxo ca kaw xamewul ku ma yaa ku daw xamewul borom say bogaare bana ya tege eskay diina loxo ca kaw mu mu sax soo ko dee xalam danga naan daata di taqay ne yor waa ñu sey di bay eskay diina mu mu soo ko dee xalam neel asmaahu bintu bay neel asmaahu bintu bay kon tuubee li ummi xay li si diine njaay dafa yenu dafa yenu dafa yenu ah waaw waaw waaw njaay nee na naa ko def jóob kon nag jóob wa a ah, déet déet déet déet waajaa sant njaay <laughs> déet kon nag ma def ko kii wàll yi kii wàll yi ah waajaa sant njaay rek El Hadj xam nga nu waaja def billaahi barke tariqa bi li ma lay wax nii lu dëgg la bi meer umu jëlee añ bi jox ko njaay njaay yanu booli bi dafa jubal ba ci rëwdu sëñ Babacar ñu defa ni kii dafa dof mu jël booli ba ni ko dégg ci rëwdu sëñ Babacar ni ko jërëjëf si am na añ am naa añ am na añ sëriñ Babacar si eh, dama doon nuyoo rek parce que gars yi waxoon nañ ni et demi la yi ni ma la wextada te Cheikh waxoon na ni képp ku biddanti bokkoo ci mbooloom te nit ñi foo nga may leen ñu mën a préparer dama doon barkeelu rek beneen yoon nag dinañ teel a ñëw te ñun ñoo guddee ñëw dina am de incha allah dama doon ziyaar rek dama doon barkeelu faju aajo gaaw na fa mbay waaw faju aajo gaaw na fa mbay tiisu dàqu gaaw na fa mbay laaj ko gaayita dikke mbay fii ci biir ti waaw noo cey ko mbaar banaani fa fa mbay dootu géej Tiwaawoon xam nga jëmmi mbay si làqu na tey waaye cër ba génn fa tey tey la waalo sax gën tey la waalo sax gën wër na waa Tiwaawoon yow di bëgg mul ñëwal ci ziar kàddu bu am solo waaw bu ñu bëgg a wax rek fii ñuy defee programme bi dafa am xale yi walla mag ñi ñoo xam ni dañu fay taal ay bomb gaas jaaykat yi bomb yi nga xam ni jaaykat yi ñu ngi ko fay taal moom la ñuy ñaan ñu bañ ko faa defati parce que waa ji wax na ni prochaine fois boo moytuwul du am salle bi te salle bi buñ ko amul dana metti ci ñun parce que liñ ñu yan nangul kenn nanguluñu ko parce que dinañ ñu may parking dinañ may foire dinañ may ñu def suñu ay yëfu sénégalais te du am benn problème nuy ñaan nag sénégalais yi nañ ci gën a taxaw xam ni lii seen yëf la lii seen mbir la bu yàqoo ñépp la yàqul li may dénkaane nag mooy juróomi sëñ Babacar yi sama nijaay sëriñ Mansour si Dabakh wax na ko sànq gars yi pareegu ma de gars yi may leen ñu tuuti. déglu leen. may leen ñu tuuti. toog leen. deux minutes rek ñu tëj deux minutes rek may leen ñu ñaari minutes rek sëriñ baa ngi tëj dama ni bu leen fàtte seen diine seen tariqa seen daayira seen métier. seen yoonu ti yóbbu muy Tiwaawan bu leen ko na ko bàyyi xel li ci sëriñ Mansour si Dabaax wax kenn mënul wax lu ko ëpp na ngeen ko gën a bàyyi xel te gën a taxaw ci loolu di wax itam ni daayira yi na ci ñépp dem duggi ndax protège la na ñépp dellu ci daayira yi muy góor di jigéen kon ñu jox Serigne Mansour Sy Dabakh mu tëj sëriñ Serigne Serigne Cheikh sànni ci ñaari kàddu rek Serigne dama lay wax ni sëriñ Diop Sy def na teraanga bu rëy ci guddi gi boole ceeg mu dawal avion ñëw fii ku koy gis fenn rek nga koy gis mooy Tiwaawan demul fenn wutiwul fenn waaye tabaarakallaahu gannaaw yàlla mi ngi taxaw ci xadra bi ak ci kër gi sànq la agsi te ëllëg lay dellu kon teraanga jooju bu la ko ni defalee foog nga sant ko gërëm ko ñoom ñëpp jàpp nañ ci ku ci daan jàpp rek taxaw nga ci oustaz Alioune Sall dafay def conférence le vingt cinq avril incha allah di jox ñëpp nag programme ca Congliano Conegliano la la la la conférence bi nekk di jox ñëpp rendez-vous incha allahu taala waaye di sant daayira bi nga xam ni ñoo organise lii te alxaaji Bada Bey nekk ca bopp ba ñu koy ñaanal yàlla moom ak équipe bi nga xam ni ñi ngi koy jàppale tabaarakallahu lépp rafet na lépp mat na bu bés bu jotee dootuñu am jàmm duñu nelaw duñu yendal duñu fanaanal Bada jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen kii ngeen ñu booleel muy seen ambassadeur di seen coordinateur di alxaaji Jamil Jëng tabaarakallaahu bu bés bi teroo atu yàlla lay yëkkati du yendal du fanaanal Jamil mi ngi ci guddi mi ngi ci bëccëg Jamil Jëng mention spéciale yal yàlla taxaw la yal yàlla fay la sëriñ Cheikhou ñetti kàddu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله mbooloo mi fi teew ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di la ziyaara di la baalu xaq dafa fekk ni laa tarfoo aswaatukum fawqa sawti nabi te yéen bu ngeen xasee ba yëkkati kàddu dootul war ci ñun ñu di ci teg benn baat waaye sañ nañ leen a gërëm ci seen taxawaay sëriñ Habib wax na sànq baaxu sëñ Mansour bu Alaaji Abdu di ku lewet wax na ni leen sëñ Mansour ci Jamil di taxawoo di ñu ko taxawoo ak mbaaxam wax na itam suñu mag ji nga xam ni fa tabaarakallaahu ku xool ren burdu bi ni mu ci taxawee ay waajuram danañu xam ni macha allah dara bougéwul muy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si bu suñu waajur sëriñ Mansour si borom daara ji waaye li ñu waxul mooy sëñ Habib mii mbaaxam ak taxawaayam dañ koy ñaanal yàlla sànq sëriñ Mansour mi ngi koy wax mission yi nga xam ni moom ngay dox ci bitim réew nga xam ni dëkk bu nekk dinga fa dem jotale fa message bi nga xam ni suñu wayjur ya ca Tiwaawan moom lañ lay jox nga jaar ci ñoom nga tuddee ko cocktail ñëw di leen ko pikiir yaakaar boobu ñu ci am yàlla bu mu tas yàlla na la yàlla dooli taxawu dooli taxawu say mag dooli taxawu say wéy jur lii ngeen ci wax yépp ci mbokk gi ak déggoo gi ak xaritoo gi ci diggante tariqa yi ci diggante diine ji yàlla na ko yàlla def mu sax bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni senegaal feek neewuñu gàmmu Tiwaawan jot na àdduna yépp daje fa ñu ni suñu baay ba ca Touba Serigne Mountakha Mbacké moo koy présider ñu ni màggalu Touba jot na àdduna bi yépp daje fa ñu ñaan yàlla suñu baay Serigne Maysi Mansour ñëw présider ko loolu yàlla na ci senegaal yegg mi ngi xol yi mi ci xalaat yi yàlla na ko jëf yi mottali sëriñ ñu ngi leen di ñaanal yàlla waa ji nag dafa dugg si ci kaar bi ni di ni alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfa sëñ Tuuba am ku nekk ca kanam daa di geesu ni ko sëriñ bi tee nga yem ci sant yàlla nga naan jërëjëfa sëñ Tuuba waa ji tontuwu ko ñu dex tuuti dem ba ci kanam apprenti bi ñëw di fay di jël paas yi waa ji ni ko fayaaleel naa kee ci kanam ki ko ne woon bul wax jërëjëfe sëñ Tuuba bi mu demee ba ci waaje mu koy bëgg a fay mu ni ko déedéet kee ca gannaaw fayal na la mu daal di tourné tàllal ko loxo ni ko saawaay mu ne ko naam mu ni ko jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant waa ji xoolaat ko ba mu yàgg ni ko yaa ngi may tere léegi jërëjëf suñ Tuubaa man mii ci fukki dërëm yaa ngi ma ciy sant bay jooy kon ni nañu rafetal lépp na ñëpp àndandoo nekk benn sëriñ si wax nañ ko mënuñu fa jaaraat jusitum xayran wa kufitum charran wa ma laqaytum ma baqaytum turan wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dafa am ñett rek ñoo xam ni dañ leen bëggoon a sant muy alxaaji Njaay bii nga xam ni sëriñ Mansour si Dabaax mi ngi ko doon sant di zaal bu bés bii jotee dafay ànd moom ak Cheikh Tidiane Samb mii ak Pam mi nga xam ni tey fii la nekkoon bokk ci daayira bi waaye tey Pam benn moteur la boo xam ni li muy liggéey ci bés bi bu bés bi jubsee kenn du xam nu mu toll mooy coordonné dina génne alalam def ci te képp ku mu xam ni war ngaa mën a jox ci biir daayira bi wala yëf yi réussir Baye Matar dina ko def kon ñi ngi sant Baye Matar di sant Alxaaji Njaay di Zaal di sant Cheikh Tidiane Samb ak équipe yi nga xam ni ñoo des ca Sénégal di sant xale yi nga xam ni ñoom la ñuy fekk Treviso ñuy ànd ak ñun di dugal di dawal seeni oto di daw di dang-dangi ngir yàlla ak bés bi réussir yàlla yàlla fay ñëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ Mansour Sy Jamil jëf wasalaamualeykum yàlla nañ ko wat ay at yu bare bare bare waaye maa ngi sant nag sama xarit sama rakk sama jarbaat Modou Diouf ñu gën koo xam ci Diouf Bazin sëriñ bi basin bu ma sol Modou Diouf la Bazin bu ma sol rekk Diouf Bazin la doo jëndatuma Bazin daf ciy tegale ay basin ni ma yii dey fekk naa ñu ubbi ko yii dey fekk naa ñu génne ko yal na yàlla fay ko ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax jërëjëf si Malick ñi ngi ñaanal yàlla di gërëm Mbay Jóob bu góor gi moo Anta Jóob teewul ren parce que dafa am ngant moo tax ñëwul moo Mbay Jóob Mbay Jóob Jamin waaw Mbay Jóob Jamin ñi koy sant bu baax a baax sa si taxawaayam teewul waaye teewal na yal na yàlla yàggal waaw yal na yàlla yàggal teraanga si loxoom lu mu mën ren yal na mën déwoon lu ko am bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi nga ñaan wala ma ñaan allahumma ya hayyu ya man yusubu lahu alxayaat wala mansuba li gayrihi mima nusubi ala nafsihi taazama subhanaka asmaa wa tanazzahat an musamayat taazama zaatuka an almisaali wa sharika wa nazir wa sahabati wa alwazir فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية فانبسطت الحياة من حياتك فأنت باقي ولك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوات والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير yal yàlla nangu sunu euh, gàmmu gi tey yonent bi dafa ni ku nga xam ne kii da wut li nga xam ni moo neex yàlla rek soo jógee sa kër ba ba ngay agsi fii jéego boo jéegi soixante-dix mille malaayika ñoo ànd ak yow di la ñaanal di ñaan yàlla mu yërëm la mu ñaan yàlla mu jéggal la yal ko yàlla defal yal ngeen dellu seen kër si jàmm déwoon ñu dajewaat fi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla nañu ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي ولنا